jiital ci nuyoo bi cheikh mohamad muntaqa alxalifatul am ayaduhu llah wa nasara di nuyu mbokk yi ñu topp yépp di ñaanale daayira bi nga xam ne mooy saytu jumaa ji di saytu it sit bi nga xam ne ab sit la boo xam ne dañ ci jàllale ay njàngale sëriñ bi suñ boroom defal leen tawféex ca dajal leen ak ngërëmal sëriñ bi ci liggéey bu rafet bi ñuy liggéey naa loolu jataay bii nag dafa bokk ci jataay yi nga xam ne waa daayira bi ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy taxawu jataay bi nag mën nañu wax ne mooy jataay bi gën ci jataay wala sax bokk na ci jataay yi gënal sëriñ bi ndax sëriñ Tuubaa léppam da ko joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ak ruwaam ba ci sax jumtukaay yi mu doon jëfandikoo jumlata maali wa midaadi wal qalam hadiyatun lil Mustafa baabi niam muy lim doon bindee ak lim doon jëfandikoo yépp da koo jagleloon yonente bi sallallahu alayhi wa ay atam ay bisam ay weeram lépp mu jagleel ko yonente bi kon fu ñuy waxtaane yonente bi rek man nañ ni ëttu yoonu murit yi moo ñëw ci gën a yell ngir sëriñ bi ni mu demee woon ak moom ci mbëggeel ni mu demee woon ak moom ci tagg ak ni mu demee woon ak moom ci yeneen anam yu baree baree bari moo tax jataay xam-xam yi ñuy amal fii ci euh, site bi insha allahu taala jataay bu mag bu tedd bi nga xam ne dañ ko jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam insha allahu taala la cinq bu ne dana jàll ñun ñu fas yéene ko ànd ak yéen yonent bi nag suñ boroom moo ñu xamal ci alxuraan ci ay ay yu bari xamal lu ñu ñu ne ku soxla ci moom yërmande walla lu man di doon rek yonent bi mooy bunt bi mooy ki gën a yey ci lépp annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim moom it ci mbaaxam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne kenn ci yéen ak ngëmam du mat mukk fekk gënaluma ko ndeyam ak baayam waaye gënal ko it ak njabootam loolu nag mbëggeel googu bala muy am faw dañuy tudd ay jaar-jaaram yonent bi nag léppam moo tedd léppam a sell léppam it lañ mën a waxtaane yàlla moo ko waajal waajal goo xam ne amut ci jaar-jaaram lu ñuy ñug-ñugal wala loo xam ne mënee su ko wax léppam moo neex léppam lañ mën a waxtaane moo tax fas nañ yéene waxtaane mu nekk ab silsila ak càllale goo xam ne day tàmbalee ca ay cosaanam di dem di dem ba insha allahu taala fas nañ ci yéenee jukki ay bind yoo xam ne yu am solo lay doon jataayu tey bii nag ni ko nettalikat yi baaxoo di nettalee nga xam ne fu ñuy nettalee ci ku baax ki yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dañuy jiital aw askanam ndax askan wi dafa doon loo xam ne yàlla da koo tàmbalee waajal mën nañ ni sax ba mu bindagut aadama ba mu dajalee ruuya rek ndekete booba law tàmbalee waajal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom yonent bi moo waxoon ne kuy wax ci ay maamam soo àggee ci àddinaan bi nga xam ne mooy ñaar fukkeelu maamam na nga yem foofu bul jël la ca des di ko tudd loolu it boroom xam-xam yi nee nañ dañuy bañ ñu di ñu di ci boole koo xam ne bokk ca wala ñuy bàyyi koo xam ne nii da caa bokk moo tax boo demee ci téere bu am solo boobu ñuy woowee arraxiqul maxtuum ku ñuy wax safiyu rahman al mubarak fóor yi moo ko taalif muy téere boo xam ne dafa dajale la téere yu njëkk ya doon nettali tàmbalee ci ibnu ishaq mi njëkk a nettali ci siira jaar ci ibnu hisham ba ci téere yu bari yooyu xam ne dañ doon nettali ci siira mu tënkaat ko tënk bu tënku sax euh, di ci waxtaan ci uslub boo xam ne it bu yamamaay la bu buñ mën a dégg la boo demee ba muy nettali ci cosaan yi la ne ah cosaani yonent bi kat boroom xam-xam yi danañ ko xaaj ñetti xaaj maanaam askanu yonent bi boroom xam-xam yi xaaj nañ ko ñetti xaaj am na xaaj boo xam ne ñépp ci dëppoo umma bi yépp nettalikat yi ñi nga xam ne dañoo màcc ci lu jëm ci wàllu ansaab ñoom ñépp dëppoo nañ ci ne xaaj bu njëkk bii nii mu demee nii la demee te xaaj boobu mooy bi nga xam ne moo tàmbalee ca muhammadu ibnu abdullahi di dem ba ca adnaan looloo tax sax sunu sëriñ comme niñ ko waxee léegi cheikhul xadim ci yittewoo ak am ci yonent bi sallallahu alayhi wa dañ ko waxee léegi nga xam ne léppam tàgg la ak julli am na xasiida goo xam ne nii mi ngi ko tënkee wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi yaakaar naa bayit bu njëkk ba wajjahtu kulli lil waduudi samadi saa xidmatin lil mustafa muhammadi xasiida googu boo ci demee nu gën a xarañ ñu gën a xarañ ñay nettali nañuy nettalee ñu ko gën a xarañe noonu la ko nettalee moom maam yonent bi ndax bayit bu ci nekk rek dajaa tudd benn maamam boole ko tagg wu rëy ak julli ak ñaan bayit bu njëkk ba daa wax ne alhamdu wa shukru maan lillaahi ala nabii waladi abdillahi noonu la ko toppee ba ñaar fukki bayit yoo xam ne bayit bu ci nekk rek tudd na kenn ci maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee sax ci bayit ba mujj tudd àddinaan ma nga naan wahabta lii fadlan ilal jinaani yarfaxu kulli bi nabil àddinaani kon yittewoo googu dañ koy gis ci mbindam moo tax fu ñuy nettalee rek ba suñu gëstu may ñu loo xam ne sëriñ bi war rotal na ko dañuy dem ca la ca sëñ bi wax ba noppi soog a delluwaat ci yeneen téere yi nga xam ne ay nettalikat lañ ba noppi ñu bokk ak ñoom pas-pas euh, safiir rahman al mubaarak fóor yi nee na ñetti xaaj la xaaj bu njëkk boobu mooy nit li tàmbalee ci abdullahi ba ci adnaan waaye nee na xaajum ñaareel bi nag moom ñii dañ cee dëppoo ñii dëppoo wuñ ci te xaaj boobu niñ ko waxee léegi yonent bi dafa waxoon ne ku àgg ci adnaan nanga fa yem gëstukat yi nee nañ xaaj boobu mu ngi tàmbale ci Adnaan ba ca nabiyullahi Ismaayil alayhi salaam Ismaayil mi nga xam ne Seyduna Ibrahim mooy waajuram moo tax ñu naan yonent bi sëtu Ibrahim la wala sëtu Ismaayil la ci ñi nga xam ne dañuy gëstu ci ilmul ansaab demaan nañ ba nga xam ne sax dañoo jéggi ñaareelu xaaj bi di tàmbalee ca Ibrahim di dem ba ca sayduna aadam mi nga xam ne mooy abul basar loolu boo demee ci téere boobu ma tudd dana fa yaatal yaatal gu takku kon dañuy daal di yem ci fi nga xam ne moom lañ gis ci mbindum sëriñ bi mu yem fa waaye it boroom xam-xam yi ne nañ yem foofu léegi ñaar fukki maamam yooyu noonu nga xam ne mu ngi tàmbalee ca Abdullahi ba ca Adnaan li ci yéeme mooy ni ñu waxoon ne yàlla da ko yàgg a waajal ñoom ñëpp ku ci nekk rek da ngaa sa jamono yaa nekkoon sa sangub jamono booleem maamam yooyu rek kenn ku ci nekk yaa nekkoon sa sangub jamono moo tax nii ñu ko toftalee ñëpp dëppoo nañ ci ne tur yi nii mu wadde noonu la rote muy muhammadu ibnu abdullahi ibnu abdul muttalib ibnu hashim ibnu abdul manaaf im ibnu im ibnu kilaab ibnu murra ibnu kaab ibnu luay ibnu ghalib ibnu im nu malik ibnu nodar ibnu kinaana xosayma ibnu xusayma ibnu mudrika ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nisaar ibnu mahad ibnu adnaan lii moom ñépp ci dëppoo amu ci benn tur boo xam ne dañ caa wuute léegi nag ci ña ma maamam yooyu nga xam ne ñooy ñi ko gën a jege masalan Abdul Muttalib ñu bari tur woowu moo siiw waaye loolu du aw turam Abdul Muttalib sayba moo nekkoon aw turam saybatu nee nañ dafa juddu rek indaale ab bijaaw bopp bi weex tàll ñu ne kon boog sayba borom bijaaw bi euh, Abdul Muttalib moomu Hashim mooy baayam Haasim dafa amoon frère am bu ñuy wax al-Muttalib Haasim nag dafa takkoon soxna ca côté Yasrib ba mu fa takkee soxna ca la Sayba mii feeñe nga xam ne jot ak si màkk bi Haasim faatoo Muttalib dem Yasrib di wëri doomi fereeram boobu ñuy woowee Sayba ca nettalikat yi nee nañ Abdul Muttalib nit ku ñuul la woon maanaam dafa ñuul la gënoon a jege ci weex nee nañ bi ko euh, rakki baayam yooyu ñuy wooyee Mutalib gisee daat koy togg ci giléem gi ne ko dama lay yóbbu ca sa mbokk ya ca màkk nee nañ bi mu duggee Màkka rek waa Màkka dañ ne xanaa kii abdun lil Mutalib la wala abdul Mutalib la Mutalib xanaa kii sab jaam la ba tur wi dem di law ñu naan abdul Mutalib waaye ca dëgg-dëgg abdul Mutalib mii euh, ba moo nekkoon turam Abdou Manaaf daa amoon ñaari doom kenn ki kenn ki Mutalib Haasim moo jur euh, waaye dafa teel a faatu Mutalib mii nag dem woon ko ba gis ko ñu faral di ko euh, askanale Abdul Mutalib Abdul Mutalib li ma waxoon ne maamam yépp ñoo nekkoon seen sangi jamono Abdul Mutalib suñ borom da koo taw féexal yu baree baree bari yoo xam ne ci loxoom la feeñe ba ci njëkk mooy li ñuy wooye biiru samsam sam biiru demoon na ba sakk maanaam ba fatt ba nga xam ne ndox mi amatut biñ ko fattee it wax nañ ne xabila boobu ñuy wooye xabilatu jurhum bañ koy fatt dugaloon nañ fa wurus ak i jaasi ak i xeeti yére yi ngànnaay yi nga xam ne moom la araab yi yee ca gën a ya ca gën a ya ca gën a riis moom lañ sakketeen bi waaye nee nañ Abdul Mutalib dafa tëdd guddi di nelaw ñu mel ne daal borom bi dane ko boo demee ca barab sàngam am na biir bu fa nekk nga gas ko sulli la fa nekk biir boobu mooy biir sam-sam booba nag Abdul Mutalib benn doom la amoon ñu koy wax xaaris moo tax sax dañ koy dàkkantele abul xaaris mooy ab taawam doomam jooju jamono jooju doom jooju rek la amoon moo ko dimbali ñu wàqi ba ndoxum sam-sam mi génn mu mu am fayit wurus wu baree baree bari or ak jamaa ak xaalis ak jaasi yooyu ma wax léegi yu baree bari sulee ko fa loolu tawfiiqu Abdul Muttalib la bu ñaareel bi it muy amul fiil euh, la ca xewoon nga xam ne ba ab Abraha ñëwee moom la fa fekkoon waaye dafa wax waa dëkk bi ni leen génn leen ngeen bàyyee ko dëkk bi borom néeg bi dana aarub néegam loolu moo waral suuratul fiil wàcc comme ni ko alxuraan nettalee waaye Abdul Muttalib doonoon ku ñu wormaal ku ñu weg moom dafa judd rek wegu liñ baaxoo xam mooy bijaaw ku ko am dañ koy weg yaakaar naa liir boo xam ne dafa judd rek génne bijaaw kooku wegu la mu ne woon daal bu amee fukki doom yu góor dana rendi benn bi sante ko yàlla suñ borom def mu am fukki doom yu góor ak njaboot gu jigéen gu bari sax yaakaar naa bu ñu demee ba ca kanam danañ tudd xaatika moom nga xam ne moo nekkoon bàjjenu yonent bi te bokk ak Abdullahi lépp waaye fukkeelu doom ba mooy Abdullahi mii waajur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañ bi bi mu amee fukki yi ñu fàttali ko ne ko kat yow yaa niseroon yaa waxoon ne soo amee fukki doom da nga rendi benn bi sante ko yàlla nee nañ mu xaw a mel ne ku afale waaye daal ci jom ja ak ni ñu leen xamee ñoom euh, Banu Hashim ni ñu amee jom ak ni ñu amee dignité mu ne daal li ma waxoon faawut naa ko def nee nañ ci la ne comme fukki doom lañ dañuy tegoo bant ñu xool ku sa bant génn rek yow laay rendi nee nañ bi ñu bant yi bantu kam gën a bëgg ci njaboot gi bantu ka gën a taaru ci njaboot gi bantu ka gën a yiw ci njaboot gi bantu caat caatam muy Abdullahi génn ah nee nañ mu xaw a mel ne lu ñëkkal kanamam ngir ne daal bëgg yu ma woon mu demee nii nee nijaayi Abdullahi bi coow li bare ay nijaayam ñoo ñëw ci Abdul Mutalib ne ko tinuñu di di di sàkku ci moom ndimbal ne ko nag wax dëgg yàlla suñ jarbaat bi duñ la bàyyi nga di ko rendi te boo ko defee dana doon aada joo xam ne araab yi danañ ko fi saxal te bu boobaa aada ju ñaaw lay doon am na góor goo xam ne ma nga ca barab sàngam bu ñu fa demee moom danañu mën a lijjanti nee nañ mu xaw a wàcc tuuti daal dem ca góor ga góor gi laaj ko lu ngeen baaxoo joxe diya ci bakkan ñu daal di gëstu daan ne diye di liñ baaxoon a joxe mooy fukki giléem nee nañ góor ga daan ne ko kon dañuy yëngal bu bant bi génnee dal ci Abdullahi muy fukki giléem ñu di ko def di ko def ba ba muy dal ci giléem yi nee nañ saa yu ñu ko defee mu dal ci Abdullahi muy fukk ba fukki di fukk maanaam fukki yoon la génn di fukki giléem di fukki fukk muy téeméeri giléem ñu ne ko diye bi mooy téeméeri giléem nga xam ne moom lañ jotee abdullahi moomu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax naan ana ibnu zabi hayni man mii maay doomi ñaari ñañ bëggoon a rendi azabihul awwal mooy abdullahi mii histoire saxal na ne dañ ko naroon na rend waaye ci ndimbalu yàlla la mucc azabihu saani muy ñaareelu rend bi muy junj ñépp xam nañ ko mooy ismail mi nga xam ne wax naa ci tàmbali bi ne saxal nañ ne sëtub yonent bi la waaye la dox ca diggante ba moo leerul moo tax ñuy tere ku ci ku ci ku koy tudd kon nii ñu ko waxee it ci Abdul Muttalib waxe ko ci jaloore ji dal ci Abdullahi fi ne bu ñu demoon ci taarix ci kutubu taarix lu ci mel ni al bidaayatu wa nihaaya wala téere yi nga xam ne dañuy faral di nett li euh, li ñu tuddee al arabul jaahiliya ñoom boo fa demee ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne fukki maamam yii ma tudd léegi ku ci nekk sa say jamono yaa nekkoon sang ba masalan Hashim mi ma tudd léegi euh, nee nañ moom moo gàddu woon añub walla di berndeel ñi nga xam ne dañuy ñëw ci néegub yàlla bi di leen ko jox gratuit loolu ci maamam yi la kasaalika bu ñu ko toppee ñoom ñëpp noonu lañ meloon mooy la nga xam ne mooy la Abu Sufyaan waxoon rek ca jamono jam koy wax ab yéefar la woon wax ko wax joo xam ne ni la ko wax ak xol bu xol bu tàlli kenn tegu ko benn pression mu ne muhammadu daal wa huwa fii naasu nasabin fi ñun daal ñun arab ku rëyu askan la ca loolu benn dialogue boo xam ne wala ay laaj yoo xam ne dañ ko ko doon laaj buur bu ko doon laaj ca kanam kanam danay ñëw incha allah euh, kon lii mooy askanu yonent bi ca liñ baaxoo xam mooy booy dugg ci moom nga leeral ne ku setu askan la ku sellu askan la ku tedd askan la askanam yi xamuñu ci koo xam ne nii la araab yi doon dund bu njëkk la doon dund bi nga xamee ne it Abdullahi mat naa am soxna wax nañ ne waajuram Abdul Mutalib moo ko taxawu mbirum soxna ba am soxna waajuram it li ñu ràññee woon mooy waa Màkka joxoon cër la waaye cofeel gu rëy gi mu amoon ci Abdullahi cofeel goo xam ne gu ràññeeku la sax waxuma la cofeel gi waaye Abdullahi ñi mu bokkaloon Abdul Muttalib ñëpp ci góor ñi ak ci jigéen ñi ñëpp ko ëmbaloonu cofeel ñëpp ko nanguloon it moom daal daa judd rek ñépp jékki-jékki rek maase bëgg ko ñëpp maase yéene ko jàmm moo tax ba nga xamee ne ña nga doon wax wax yi rendi ko ñëpp dañoo maase rek amul kenn koo xam ne ànd na ca di sàkku ci Abdul Mutalib mu dellu ca ginnaaw moo tax bi matee am soxna Abdul Mutalib da caa def yitte ju ju kawe sax ci wàllu gëstu gi nanguwutoon Abdullahi di dem ci soxna su ko neex loolu lépp mbir yàlla la rek mu am lu muy waajal nanguwutoon Abdullahi dem ci soxna su ko neex mu jël ko waaye nee nañ dafa gëstu bu baax a baax a baax a baax ci wàllug askan gëstu ci li nga xam ne luñ ci xeebe kenn ci arab bi lañ baaxe woon a xeebe koo xam ne nii amul luñ koy xeebe ci li arab bi baaxe woon a xeebe ci dara nag ci zahir ak ci baatin nee nañ ba yem ci soxna Aminatu mu dox ko ba jox ko Abdullahi soxna Aminatu moom it ni ma taxawee ci Abdullahi mii incha allah ci jataay bi ñu war a amaat danañ ci wax soobe yàlla waaye Abdullahi mii nag borom bi dafa dogal mu doon koo xam ne ku teel wàccu liggéey la ku teel a faatu nga xam ne mën nañ ne sax lu baree baree bari ci mbirum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkewu ko walla ànd bu yàgg sax dañ baaxoo wax ànd bu yàgg ca dëgg dëgg dëgg dëgg nee na defu ko ak soxna Amina soob yàlla ci jataay bi nga xam ne moom lañuy ñëwaat ci lañuy wax ci anam bi nga xam ne ci la Abdullahi wàcceeb liggéey waaye ci xéewal gu rëy gi nga xam ne nee nañ mooy xew-xew bi gën a rëy ci taarixul basar ba aadama sosoo ba ilaa yawmi diin nee nañ mooy li gën a rëy ci taarixul basar nettalikat yi wax nañ ko xew-xew boobu mooy lan mawlidu nabi alayhi salaatu wasalaam nga nekk jamono yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mi nga xam ne sëñ bi léeg-léeg ci baat yi nga koy wax bokk na ca muy baabu naim buntub xéewal bi nga xam ne yërmande ju yaatu ji yàlla ji nga xam ne moom la yor ak xéewalam yu bari yooyu nga xam ne du jeex yépp da ko dëxëñ sabab bi nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñi nga xam ne yàlla taw tawféexal nañ leen ba ñu yor xol bu leer xol bu set te yàlla namm ci ñoom njariñ ñu jox seen lépp yonent bi loolu moo tax ku di murit rek jataay yu mel nii war na lay yittewoo bu baax a baax a baax war nga koy yittewoo bu baax a baax a baax ngir sunu sëriñ ni meloon ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam asalafu saalix sax ñi nga xam ne ñooy mën nañ sax attaabiyoon na sax laay wax génération bi nga xam ne ñooy ñëw ginnaaw saxaaba yi ñoom daanañ def ne nañ ay jalasaar am na ci ñoo xam ne jalasaat yi ginnaaw gee lañ ko doon def am ci ñoo xam ne jalasaat yi baynal maghrib wala isha lañ ko doon def jalasaat yoo xam ne ñii dañ ci doon nettali na bi te ñoom kat gis nañ saxaaba yi ñu ci bari ci ñoom ñii dañ ci doon waxtaanee euh, jaar-jaar yonent bi ca saxaaba yi daa ko teewe loolu kon dafay dundal xol ca dafa day tax cofeel gi nga xam ne moom la yàlla santaane ñu am ko ci moom day tax mu gën a yokk te nee nañ ku la ko gën a bëgg rek moo la gën kon mbokk yi lii mooy askanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci niñ ko mën a tënke ca la tàmbalee ca Adnaan ba wàcc ci Abdullahi mii nga xam ne mooy waajuram kon ñu ngi leen di joxaat rendez-vous incha allah la cinq bu ne ci weer wi lay am euh, jataay bii di ñëw nag ci lañuy ñuy waxtaane diggante soxna Aminatu ak euh, Abdullahi mi nga xam ne mooy waajur yonent bi ba ñëw ci gan ak yon gan ak àdduna yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaqulu ummati arham xayra man rahima